wa alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi ixsaan ila yawmi ddin qaala almuallifu rahimahullah والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان فالصوت الألحان صوت القاري لكنما المطلوب قول الباري ما قاله لا يقبل التبديلا كلا ولا أصدق منه قيلا وقد روى الثقات عن عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمغفرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل نعم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى نوغي سن سن بروم تبارك وتعالى ci dellusiwaat ànd ak al imaam alchaab alxaafis ibnu ahmad alxakami rahimahullahu taala ci manzoom maam bu mag bi di sullamul wusul ni ngeen ko xame kon tey mooy tolloog ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab ci atum junni ak ñeent téeméeri ñaar fukk ak juróom-ñeent di tolloog ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci juróom-ñaareelu weer ci at mi muy atum ñaari junni ak juróom-ñett ci gàddaayu ci juddu yonent yàlla isa wala ci nattale wala ci nattale juddug yonent yàlla isa muallif bi nee na wal qawlu fi kitaabihi al mufassal gannaaw boo xamee ne borom bi tabaraka wa taala xam nan ci bind bi weesu ne moom day wax joxe ay firnde yu ware ne wax naa ak yonentam yi joxe ay firnde ne waxam jooju itam du jeex wax itam nag ne ñàkk jeex googu àgg na ci bari bariwaay boo xam ne it jéggi na dayo mu di adduna ak li ci biiram daanaka li fi nekk ci ay bant ak ay garab ak yëf buñ ko sotti woon ay xalima li fi nekk ci am ndoxit muy ay yu dul jeex ñu dolliwaat ci yeneen juróom-ñaar yu toll noonu jël bant yaag garab yaag la fa nekk daf koy xali muy bind loolu du tax mu mën a jeexal waxi sunu borom tabaraka wa kon bari na lool waxi sunu borom nag bokk na ca téereem yi mu wàcc ci yonent yi téere yi bokk ca téere bi ci mujj te gën ci muy alquranul karim alquran moomu làmboo mboolem la nekkoon ca biir téere yooyee mujj leen mott li leen ni ko borom bi melalee mu nekk mu hayminan muy aakimoo mboolem téere yooyu la ca nekk ci mboolem luñ nasaxalut mu ngi ci biir alquran kon nag wax ji fii ci alquran rek la ko jëmale kon pour ñu xam nag alquran mooy lan moom mu ne wal qawlu al mufassalu fi kitaabihi mufassal jooju sifa la ci alqawlu waaye nekkul sifa ci kitaab ci wenn déggiin waaye it mënoon naa nekk wal qawlu fi kitaabihi al mufassal ndax alquran ci boppam mu mufassal la al qawlu maanaam wax ji nga xam ne mooy wax ju wér ja daal fi kitaabihi ci téeréem ba al mufassalu muy wax jañ teqale maanaam wax jañu teqale ba mu leer faram-fàcce ko ci lu aju ci téeréem bi mooy lii muy bëgg a wax wala bu la neexee nga ne li nga xam ne mooy wax ji wér ci téereem boobu nga xam ne téere buñ teqale la ndax alquran luñ teqale la borom bi tabaraka wa taala nee na kitaabun uxkimat ayatuhu summa fussilat min ladun xakimin xabir kitaabun uxkimat ayatuhu téere la boo xam ne buñ xaram xarañee ay aayaam lañ summa ux uh, summa fussilat ñu taqale ko borom fàcce ko ba mu leer min la dun xakimin xabiir mu tukkee ci koo xam ne ku xaraña la ku deñ kumpa la koo xam ne dara ump ko muy sunu borom tabaraka wa kon daal li mu bëgg a wax mooy li nga xam ne moom la ab jullit war a fas ci alquranul karim mooy lan mooy yii muy tudd bi njëkk mooy bi annahu kalaamuhu bi annahu kalaamuhu mooy nga gëm ne waxi sunu borom tabaraka wa la borom bi tabaraka wa taala takallama bihi qawlan borom bi tabaraka wa taala ci bopp moo ko wax salaamun qawlan min rabbin rahim waxi sunu borom tabaraka wa taala la wa in ahadun min almushrikina istajaaraka fa ajirhu xatta yasmaa kalaam allah su fekkee kenn ci mushrikoon yi ñëw nañ bëgg a doon sa surga bëgg a liggéey fi yow bul ne ah kii kër bokk nu diine kon duma ko jël di ko liggéeyloo waaye jël ko mu toog fa yow di liggéey ndax mu dégg waxi yàlla ji loolu nag bu ñu koy wax kër bu ñuy déggee waxi yàlla moo tax lay cosaan mooy këru jullit ku fa nekk ku nekk faaw nga dégg fa waxi yàlla mooy alxuraan ji daf jib des ko fay jàng di ko fa firi di ko tekki di day xam lu mu doon moo tax surga bu nekk ca atelier ba te doonatub jullit bu fa nekkee faaw mu dégg alxuraan loolu mën na koo gindi bu dee mbindaan wala liggéeykat wala lu mën a doon te ne ci kër ga di farakante kër ga te kër ga ñu fay dégg alxuraan bul ko dàq ndax xol ba mën naa dégg alxuraan gindiku mu tàbb ci lislaam muy xéewal gu rëy ci moom ak ci yow kon moo tax mu ne wa in ahadun min al mushrikiina fa ajirhu xatta yasmaa kalaam allah waaye li ñuy bëgg a wax foofu rek mooy kalaamullahi la alquran waxi sunu borom tabaraka la yoo xam ne moo ko wax wàcce ko ci jibril jibril alayhi salaam ñëw wàcce ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moo ko ko yónni mu ñëw wàcce ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nazala bihi ruuxul aminu ala qalbika li takuna min almunzirin wala nazala bihi ruuxal amina ala qalbika lu ci nekk qiraa bu wér la alquran moom kon alqawlu almufassal fiihi bi annahu kalaamuhu mooy xam ne waxam la almunazal wax jadi ju ñu wàcce ala rasuli ci yonent ba almustafa mooy kuñ tànn ka xayril wara ka gën ca bindeef wala ka gën doomi aadama nga gëm ne daal alquran kon te waxi sunu borom tabaraka wa taala la jum wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga gëm ne it laysa bi maxluqin alquran du mbindeef wala bi muftara laysa bi maxluqin maanaam du mbindeef ndax dafa bokk ci melokaani sunu borom tabaraka wa xam nga wax wax bu mu mën a doon melokaanu borom la wax ci melokaani borom la bokk da ngay miin nit ba su waxoon ne laa ilaha illa ci biti boo ko déggee rek ne kooku diw la ñaari nit ñett ñeent juróom mbooloo mi mépp sax su kenn ku nekk waxee laa ilaha illa allah benn baat bee de waaye kenn ku ne danañ xam ne yow mii sa kàddu bokk la gug diw ñaari nit ñu bokk kàddu ci kaw suuf amut comme ni nga xame ne rëddi baaraam yi ñaari nit ñu ko bokkale amut suñu borom tabaraka wa taala mu la neex mu defe ko noonu dëgg la nag ay kàddu danañ dem ba nuroo léeg-léeg sax kenn di roy keneen moom bañ ni kii daal boo ko déggee muy wax day mel ne diwa waaye boo settantalee rek xam ne bokkuñu boo settantalee rek dal di dégg la leen wutale ñoom ñaar kon wax melokaanu boroom la ni nga xamee ne sa bind bii ku la miin bu ne jàkk xam ne kii Omar la bu ne jàkk fële xam ne kële Muhammad la noonu la wax ji mel léeg-léeg ñaari nit nuroo bañ naan ñooñu daal xawees na leen a mën a jaawale waaye buñ bokkee toog nga xool xool xam ne rek bokkut xam ne wuute nañ am na lu leen wuutale kon ñaari jëmm yoo xam ne ñoo nuróole lépp amut ci kaw suuf ñaari kàddu yoo xam ne ñoo nuroo ci lépp amul ci kaw suuf comme ni nga xamee ne ñaari baaraam yu bokk ay rëdd amul ci kaw suuf loolu xariñ ak suñu borom tabaraka wa rek la moo ko man ba mu dalee bind ay nit ñuy faatu ba keroog àdduna di tukki ñaari nit ñu mës a bind ñu bokk rëdd baaraam amul loolu kéemaan bu fekkoon ne leneen ay bind nit lu dul sunu borom tabaraka wa kon mën naa fàtte rëddi baaraam yoo xam ne masoon na koo def bu yàgg mu jaawale ko defaat ko mu génn wala ñaari nit ñu ko bokkal wala ñu nuróole waaye jëmm yi noonu la mel rëddi baaraam yi noonu la mel kaddu yi ñuy wax nga di ko dégg itam noonu la mel kon dëppoo nañ ci ne wax melokaanu borom la loolu moo tax waxi sunu borom tabaraka wa taala ñu lay wax ne melokaanam la ginnaaw nag moom bokkaliwut ak kenn lenn kon waxam itam bokkul ak waxi kenn waaye nag waxam jooju bu ko wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danoo war a gëm ne comme ni nga xamee ne borom bi tabaraka wa taala jëmmam ja kenn bindu ko melokaanam yépp itam luñ bind nekku ca moo tax daf laa bëgg a jàngal ci nan ngay mën a dem ba xàmmee ne alxuraan melokaanu sun borom la ba noppi nga xam ne kenn bindu ko pour mu mën a leer ci yow bu baax a baax moo tax boroom bi tabaraka wa pour nga xam ne waxam bokkul ak ak ay waxam bokkul ak lam boo xoolee aaya bi muy waxe ne ala lahu alxalqu wal amru ala lahu alxalqu wal bi tabaraka wa nee na maa moom ñaari yëf alxalq mooy bind sàkk wal amru ak santaane joxe ndigal sàkk moom muy bind kooku jëf la waaye santaane lan la wax wax waaw jëf ak wax lu ko wutale borom bi tabaraka wa taala nee na innama amruhu ida araada shay'an an yaqula lahu kun fa yaqul su toogee ba bëgg a sàkk dara bëgg a defar dara foofu waxay ñëw kon la muy bind ak li muy wax bokkuñu la muy bind moom bindeef la kenn juyoowu ci waaye li muy wax ne ko kun kooku waxam la boo settantalee aaya jooju ci ngay jële dalil bu wér cëñ cëñ ci ne ay waxam du mbindeef lu tax nee na innama amruhu nee na lii mbiram moom suñ borom tabaraka wa taala araada su nammee dara su bëggee dara su bëggee sàkk dara an yaqula lahu kun fa yakun da koy wax nekkal mu nekk kon bindeefi yàlla yi ak lu ñuy bari bari ak seeni xeet seeni qualité lu ñu wuute wuute lépp kun moo leen sàkk maanaam borom bi tabaraka wa taala dana nekk leen ñu nekk waaw kun moom ndax mbindeef la nu ne déedéet ñu ne luy dalil ci ne du mbindeef su fekkoon ne kun ci boppam ci yàlla bind la bokk kon su koy bind lu mu koy wax pour mu am kon kun la koy waxaat te kon kun joojee kon mbindeef la moom itam bu koy sàkk lu mu koy wax moom it kun kon kun ya day tegaloo di dem rek du jeex amut fenn kum yëpp loolu la ñuy tudde ci mantiq ak tasalsul lépp loo xam ne topp nga ko ba gis ci li ñuy tudde tasalsul rek xamal ne loolu mënta nekk moo tax baatil lañ koy tudde ñoom day wax ne ay neen la ay neen la saa bu ñuy tegtaloo waa xel waa xel ñi nga xam ne xel yi kese lañ yoon di tegtalu ba àgg ci tasalsul su boobaa moom songoo di xeex ak sës waaye aw lay duutu mën a taxaw moo tax xeex biñ naan dafa amoon ci grec ci jamono yu yàgg xeex bu continuer sax lu mat ñaar fukki at ak nàngam lañ ca tuur ci deret kenn xamul nu mu la doon sabab sax mooy waa xel dañoo daje di xeltu ñii ne ganaar a jiitu ñii ne nen a jiitu kenn ku ne joxe saw lay kii ne ganaar boo gis bu nekk ci ab nen a toj mu génne ci ñi ci des ne ko waaye nen boo gis bu nekk ganaar a koy nen yëf yu jaxasoo ñuy werante ca loola ba xeex ba tàkk ñenn ñu ci nekk doonub kuréel ñu jaamaarloo di tuur ay deret lu mat ñaar fukki lu tax mooy dalil ba dafa dem ba àgg ci li ñu tudde tasalsul mooy kenn mënatu la indi firnde ju leer dellu ci yàlla rek booba suñ xamoon ne borom bi tabaraka wa taala innama amruhu ida arada cheyan an yaqula lahu kun fa yakun dañu xam ne yàlla moo ci wax leer li ne ko nekkal rek mu daal di nekk bu ne nen bi nekkal mu daal di nekk bu ne tuuti mu toj ganaar génn ba ëllëgee muy nen di toj bu fekkee ganaar ga la ne kun it ganaar daal nekk waaye nag ginnaaw xamuñu woon yàlla seen xeli kese lañ yor moo tax loolu dal leen liñ bëgg a wax foofu mooy borom bi tabaraka wa taala kon lu mu bind lu ne dane ko nekkal loola nekk kon nekkal jooj yi nga xam ne ay waxama kon moom du mbindeef ndax su doon mbindeef kon moom it day woo ñu ne ko nekkal nekkal jooje day aajowoo nekkal nekkal nekkal ju dul jeex kon kooku lañuy ñuy tudde tasalsul xaw ma ndax loolu leer na ci yéenam dégg waaye su fekkee leer na ci dalil yi wane ne waxi sunu borom tabaraka wa taala du mbindeef ci la bokk bokk na ci it ñaan gi rot ci xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa di wax ne audu bi kalimati llahi tammati min charri ma xalaq audu maa ngi muslu maa ngi làqu maa ngi xettliku ci kàddu yi sunu borom tabaraka wa taala yu mat yi maanaam waxi sunu borom tabaraka wa taala yu mat li ñuy tudde al istiaada muy xettliku ci dara ak làqu ci gannaaw loolu xeetu jaamu yàlla la ci jaamu yàlla yi gën a dëgër sax ci la bokk su fekkoon ne danoo wax ne waxi sunu borom tabaraka wa taala mbindeef la kon foofu dañuy wax yonente bi salallahu alayhi wa bu dee audu bi kalimatillahi tammaati kon mi ngi xettaliku ci mbindeef maanaam mi ngi jaamu mbindeef te kenn ku nekk xam na ne jaamu mbindeef shirk la te yonente bi alayhi salatu wasalaam du bokkaale kon kalimatillahi du mbindeef melokaanu sunu borom tabaraka wa taala la kon mbindeef daal mboolem ay melokaanam muy waxam ak jëfam ak nañ ko bindee lépp luñ bind la borom bi tabaraka wa taala mboolem ay melokaanam muy waxam ak melokaanam yim nu wax ne noonu la mel lenn du ci mbindeef ndax dañuy wax ne as-sifatu taabiatun lil matbuux lil mawsuuf sifa taabiatun lil mawsuuf kenn ku nekk say melokaan day ànd ak yow doon la nga doon ka doon mbindeef ay melokaanam mbindeef lañ ka dul mbindeef ay melokaanam duñ mbindeef kon waxi suñ borom tabaraka wa kenn bind ko moo tax mu ne laysa bi maxluuqin du luñ bind wala bi muftara du luñ duur yi ay duur mooy luñ fent luñ sos yekki ba mu yàgg rek ñi créé ko kon alquran nekkul muftara kuffaar ya muy yéefari Quraysh dañ doon wax ne alquran bi moom dafa jekki ba mu yàgg rek mu sos ko noonu lañ ci doon tuumaal yonente wa qaala alladina kafaru in hada illa ifkun iftaraahu wa aanahu alayhi qawmun axarun dañoo toog ba mu yàgg ñoom yéefar yi ñu ne lii daal ifkun maanaam ay neen la yoo xam ne daal moo toog ba mu yàgg mu sos ko loolu lañ tuumaal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne daa am nag ñeneen ñu ko ci dimbali ñooñu ñu mu doon loolu mooy ku jaaxle rek faaw nga wax waaye lañ doon wax ñoom sax gëmuñu ko xam nañ ne biir arab yi ak la ñuy mën a wax la ñuy am fasaaxa lépp ku mën a sos lu mel ne alxuraan nekkul ci seen biir moo tax wa aanahu alayhi qawmun axarun maanaam am na ñeneen ñu ko ci dimbali ñooñu mënuñu wax ñu mu doon fal alquran ci boppam ne leen défi leen ñoom ñëpp taxaddi leen ne leen su fekkee ne li ngeen di wax dëgg la yéen def leen lu mel noonu te seet ñu leen jàppale yéen itam ngeen moo tax mu ne am yaquluuna iftaraahu am yaquluuna iftaraahu qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi dañuy wax ne yonent bi da ko fental boppam mu ne leen fent leen fukki saar rek yu mel ne moom alxuraan téeméeri saar la ak fukk ak ñeent yéen defar leen fukk rek yoo xam ne muftarayaatin yoo xam ne moom it da a toog rek sos ko mu tekk ni waa daxoo man istataatum woo leen ku ngeen mën a woon ak ci seeni bulagaa oog seen i fusaxaa oog seen i shuaraa ña dàq wax ci dajale leen leen wax leen loolu wadu man istataatum min dunillahi in kuntum saadiqin su fekkee ne li ngeen di wax dëgg la woo leen ña dàq wax ci yéen ngeen bokk ñu jàppale leen ngeen sus fukki saar képp yu mel ne alxuraan ngeen génne ko loolu ñu lott ca loola defuñu ko kon li mu ne wala bi muftaraa naam kon alquran ci boppam doonut loo xam ne luñ sos la alquran nag muallif bi nee na yuxfazu bilqalbi wa billisaani yutla kama yusmacu bilaadaani kada bilabsaari ilayhi yundaru wa bilayaadi xattuhu yusattaru nee na yuxfazu bilqalbi dees koy mokkal ci xol loolu ci melokaani alquran ci boppam la bokk moom maanaam nit ki dana ko mokkal mu nekk ci xolam ku fi nekk ku nekk jàpp naa ne mokkal nga dara ci alquran tàmbalee ko ci alfatiha def naa ñëpp ko mokkal wala am na ku mokkalul alxuraan la mooy ndey alquran ummul quran kon des na ko mokkal mu ne ci xol nit ko yëg ne loolu ci alquran mu ngi ci bopp wa bil lisaani yutlaa des na ko jàngi taw ci mu làmmiñ maanaam relation wala rapport bi dox diggante alxuraan ak cëri doomu aadama yi moom lay wax xol bi wàllam ci alxuraan mooy mu mokkal ko mu ne fa mu téye ko wa bil lisaani yutla wa yutla bil lisaan des na ko jàng ci làmmiñ nit ki di jàng di tari ngay dégg moo xam day julli moo xam daa yorub kaamilam di jàng wala day tari kon nga xam ne làmmiñ wàllam ci alxuraan moom it di ko wax ñi dégg la kama yusmau nekke lañ koy déggee bil adani ci nopp yi nit day toog fële di jàng wala mu tegub kasetam ngay déglu kon nopp itam lay wàllam ci alxuraan mooy lan mooy déglu kada mu ne nekke noonu bil absaari ilayhi yundaru maanaam yundaru dees na xool ilayhi jëm ci alxuraan bil absaari ci bët ya kon bët yitam dana ko xool nit ki dana ubbi mushafam yor toog di jàng di xool di gis kon bët it am na ci wàll wa bil ayaadi ca loxo ya itam xattuhu mbindam ma yu sottaru des na ko bind maanaam loxo tam wàllam ci alxuraan mooy day bind kon daal loxo dana ko bind làmmiñ dana ko jàng bët dana ko xool nopp dana ko dégg xol bi dana ko mokkal kon cër yi nag benn bu ci nekk am na ci am na ci alxuraan wàllam lim la bëgg a wax nag mu ne wa kullu di maxluqatun xaqiqa nee na yooyu yépp dañ leen a bind yooyu yépp dañ leen a bind muy xol bi koy mokkal jege gi muy jege jege alxuraan du tax mu soppiku koo xam ne day mel ne alxuraan maanaam doon luñ bindul déedéet moom bindeef la bët bi koy xool loxo bi koy bind làmmiñ bi koy jàng ak nopp bi koy déglu yooyu yépp bu ñu àndee nee na wa kullu zi mboolem yii maxluqatun luñ bind la xaqiqatan ci dëgg-dëggi bind lu ci nekk mbindeef la mu ne duuna kalaami baari il mu ne waaye waxi sunu borom tabaraka wa taala day kenn bindu ko maanaam ka loxoom di bind loxo bii bind mbindeef la waaye la muy bind loola du mbindeef nopp bii déglu nopp bi de luñ bind la waaye la muy déglu déedéet loolu waxe suñu borom tabaraka wa bët bi ubbi bi xool la muy xool wa taala la waaye bët bi dañ koo bind lam mokkal mu ne ci xol bi xol bi ci boppam mbindeef la waaye lam mokkal mu nekk fa loola du mbindeef loolu ab séparation la boo xam ne jullit bi da ko war a xam mu leer ci moom nañ ñi moo tax mu ne wa kullu di maxluqatun xaqiqa duna kalaami baari il xaliqa jallat sifaatu rabbina arrahmani an wasfiha bilxalqi walxadasaani jallat mooy màgg na sore woonte na sifaatu rabbina melokaani sunu boroom arrahmaani boroom yërmaande ji an wasfi an wasfiha ci ñi di ko melal bil ak bind wal xadasaani akub sosu waxi sunu boroom tabaraka wa sore wonte na ak ñi di ko melal melokaani sunu boroom yépp sax sore woonte nañ ak ñi di ko melal ci naan lii dañ koo bind wala ñu naan lii dafa sosu ni nga xamee ne moom borom bi tabaraka wa taala tàmbalewul fenn nekk noonu melokaanam yi yëpp benn tàmbalewu ci fenn kon mu gën laa leeralaatal mbir mi tuuti mu ne fa sawtu wal alxaanu sawtu lqaari lakinama almatluwu qawlu lbaari fa sawtu mooy kaddu ga baat ba wal alxaanu ak daaj bi jamono yi nga koy jàng ni nga koy saw jàngiin mu li ñu tudde al ada li ñu tudde al ada ci jàngkat ba kii tajwid quran dana ko xam nee na yooyu sawtul xaari kàddu tey la li tax bu ñu yëkkatee même aaya bi wala même saar wi di ko jàng nga déglu kii ne ah kooku de Cheikh Mahmoud Khalil al Xusari la même saar wi nga indiwaat keneen nga déglu ah kooku de Cheikh Abdourahman As-Sudais la ñu indi keneen mu jàng nga ne ah kooku day Mouhamad Siddiq al-Minshawi la même saar wi kon baat bi ngay dégg ak daajiin wa na muy jànge loola jàngkat baa ko moom yëfam la ah fa sawtu wal alxaanu sawtu alqaari loola baatub kay jànga lakinnama almatluwu waaye lañuy jàng nag kooku xawlul baari mooy waxi ka bind bindeef ya kon la nga xam ne moom lañ bokkale nga xam ne ñoom ñëpp ñoo ko bokkale bi nga déggee muy jàng sóoratu rahmaan nga ne kii sóoratu rahmaana keneen ñëwaat nga ne kii sóoratu rahmaana keneen ñëwaat nga ne kii sóoratu rahmaana loolee ñuy jàng loolaay waxi sunu borom tabaraka wa baat ba ngay dégg nag naan kii diwa kee diwa kee diwa loola la mbindeef ma moom luñ bind la kon faaw ñu xàmmee li ñu tudde sawt ak li ñu tudde lafs lafs dañ koy firee baat ci wolof sawt ñu koy firee baat ba tey waaye lu gën a bari ci làkk yi yi nga xam ne mooy làkki xeet yi nga xam ne ay téere wàccu ci da mën a matale baat yépp moo tax sawt dëgg la mën nga ko firee kàddu pour mu gën a koo jox séparation tuuti digganteem ak lobs lobs nag boo ko waxee mooy baat bi nga tudd mu génn bokkul ak baat bi nga xam ne sa waxin la yow maanaam lobs mooy tolloo kalima moo tax asalafu saalix lu bari ci ñoom dañoo sib nit kuy wax naan lafzi bil quraani maxluqun lafzi bil quraani maxluq boo ne woon sawti bil quraani maxluq kooku kenn sibu sa sawtu moom ñépp xam nañ ne luñ bind la maanaam mooy son bi jël ñi di ko dégg waaye nag lafsu bi boo ko waxee day mel ne day jëlaale day jëlaale xaraf ya lafsu nag dafa boo ne lafaza yalfizu lafsan wala lafsu boobu dafay ñëw yor maanaam lafs bi ñuy wax ne masdar la léeg-léeg mu ñëw yor nekk lafs yor maanaam malfuuz muy mafoolun bihi maanaam lañ tudd loolu moo tax asalafu saalix ñu sib loolu ndax ki ne lafs yi bil quraan maxluuq kenn xamul lafs ji nekk masdar lay wax nga xam ne kon waxi boppam lay doon wala lafs ji nekk mafoolun bihi nga xam ne waxi suñu borom tabaraka wa taala lay doon parce que malfuuz boo dee woon malfuuz quraan kooku moom boo nee maxluuq rek kooku àdduna tukki kon nee nga waxi suñ borom tabaraka wa taala dañ koo bind waaye nag sañ nga ne laps yi samay wax sawti bil quraani maxluuq loolu mooy muskila bu réy bi xewoon ci diggante Buxaari ak lenn ci boroomi xam-xam ci jamonoom ndax dafa waxoon ne lafz bi bil quraani maxluuq la shakk ne al Buxaari imaam la min a'immati salaf bi mu waxee ne lafz bi bil quraani maxluuq ñépp waroon nañoo maase xam ne lim jublu ci lops si mooy waxi boppam maanaam mooy sawtam ñépp waroon nañu ko def waaye nag lu tax ay nit jël ko jengal ko tasaare ko ci nit ñi bañ jàpp ne leneen a ko tax a jóg mu loolu xeetu xeetu kiñaan bu xewoon foofu xeetu kiñaan woo xam ne nit ñi dañ ko ko iñaane woon Buxaari borom bi tabaraka wa taala daf ko joxoon ci xam-xam loo xam ne joxu ko woon ñam dëkkaloon yàlla dogal mu génnum réewam wër boroom xam-xami àdduna jàngi ba dellusiwaat bi mu dellusee fekk fa cheikh bu mag boo xam ne moom it boroom xam-xam bu mag la muy Muhammad ibn Yahya Zuhli bi mu ñibbisee Neysaboor nga xam ne mooy seenub capital maanaam mooy seen dëkk bu mag nit ñi teeru ko teeru bu xum bi ñu yëgee ne Muhammad ibn Ismail al Buxaari mi ngi dellusi ña ko doon teeru bokk na ci ñi leen jiite woon cheikh boobu ñu naan Muhammad ibnu Yahya az-Zuhli ànd ak ne moom ci ñi ko jàngaloon bu yàgg la bokkoon jàngoon na ci moom door faa jóge mobilisé mbooloo mépp ñu génn teeroo ko teer li ñuy teeroo buur buy ñibbisi ñu indi ko nit ñi ganale ko ci ëllëg sa place bi mu toogoon di jàngale mu ne ko kaay toog jàngale foofu tey maanaam ña ngi koy nattu ba xam lim wuti woon nu mu demee Buxaari ñëw toog palaasu Muhammad ibn Yaxya az-Zuhli joxe ab dars ci xadiis ca bisu ñaareel ba mu joxaat ko mu def ko ba def ko ñetti fan mu ne ko baax na nag mën ngaa jël fële ca koñub jàkka ja ubbi fab dars di jàngal lenn ci ndongo yi te ma continuer sama liggéey dal di ne continuer di jàngale mbooloo mépp dem ca fa Buxaari nekk mu toog gis ñetti nit wala ñeent ci ëllëg sa muy wàññiku di wàññi ko ba jeex kenn nekkatu fa loolu ñu néew la ko yàlla mën a defal ci seen xol mu am ba noppi di continuer nga toog loxo yi neen mu tàmbalit yebal ci biir ay gone ñi di ko seetlu ba xam danañ mën a jëlee ci moom lu dul noonu am déet jamono yooyu xam nañ ne masala bi gën a grave ci boo xam ne doon na indi problème diggante jullit yi mooy lu jëm ci xalqul quran lu jëm ci wax ne alquran dañ ko bind boo ko xasee def rek jeex na ci waa biddaa nga bokk tàbbi nga jeexal nga far nañ saw ci ahlu sunna ñi toog toog mënuñoo dégg ci buxaari lenn ba agsi ci masala lafzi bil quraani maxluuq jii ma leen doon wax léegi Buxaari wax li ci boroom xam-xam yi wax ba àggal daal di leen kon nga wax ne lafsi bil quraani maxluuq wàññiwul dara su fekkee da ngaa ci ci lafsi ji muy sa waxi bopp yow ndax loolu luñ bind la gone ya daal di rocc ku ñëw ne ko moom di daganal na nit ki di wax ne lafsi bil quraani maxluuq ah bunt dal nañ ubbiku na góor gi daal di jóg ànd ak i goneem ñuy tasaare ñu ne Buxaari tàbbi na ci biddaa ndax dugg na ci masalatul xaw xalqil quraan def na nii def na nii tuumaal ko yàq ab deram kalaame ko sax nag ak buur ba nga xam ne moo fa nekkoon te bokk ci ahlu sunna nga xam ne képp ku jàng wala luy niroog biddaa day taxaw ci sa mbir góor gi daal di koy tere mu jàngalee ñu tëj booba xalqa Buxaari jàngaleetul di dund dund bu metti ci biir Nisaabuur ba mu yàgg mu génn dëkk ba dellu ca village ba mu juddoo woon toog foofa ba faatu fekk ko fa ñu yàq foofu yiwu rëy rëy rëy woo xam ne doomu aadama mënoon nañ cee jëriñu ci ànd ak ne ñoom ci seen jëmmi bopp ñoo juum waaye la Buxaari wax noonu la kon kiñaan léeg-léeg dafay lor nit ki musiba mu mag la moo xam ne mën naa yàqal borom mën naa yàq ànd ak ne nag Buxaari moom loolu lépp taxul mu soppi lenn ci doxalinam ak yëg-yëgam ci ne Muhammad ibn Ismail eh, ibn Yaxya mii lii gaar doomu aadama rek moo ko gaar waaye téewut eh, ba tey moom na mu ko jàppe woon la ko jàppe moo tax al imam muslim ibn al xajjaaj borom saxiixu muslim mii ngeen xam nga xam ne daanaka sooy bëgg ne léppam ci Buxaari la ko jànge léppam ci Buxaari la ko jànge fu mu mos taxaw mu taxaw fa li mu ko xamal lépp mu xam ko bi problème boobu xewee coow li taxaw Muhammad ibn Yaxya dafa ñëw ci Buxaari ne ko kii du baax maanaam muslim dafa ñëw ci Buxaari ne ko Muhammad ibn Yaxya mii baaxul parce que lii mu la def lépp loo déggee woon ci moom ci xadis da ko ko war a delloo Buxaari ne ko déedéet du ma def loolu moom imaam la xaafis la li muy jàngale ci xadis lu mbokkal la te wax ji wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la moomu ko kon liñ jëlee ci moom ci xam-xam bu wér dañ koy garde muslim ku naqadi deret la woon noonu la ko yàlla binde mu ne ko benn nga bàyyi ko wala ma boole leen bàyyi yéen ñaar Buxaari ne ko ah loolu du tax ma bàyyi ko muslim dem xadis yam jële woon ci ñoom yépp mu ñëw delloo leen ko demu yoon moo tax saxiixu muslim ba mu jeex benn xadis boo xam ne muslim daf cee wax ne xaddasani muhammad ibne ismail al buxaari nekku ci ànd ak ne xam-xamam bépp ci moom la ko jànge moo tax ñi nga xam ne gëstu nañ bu baax a baax saxiixu muslim dañuy wax ne li ci nekk ci xadis yoo xam ne ci buxaari la ko jële kenn xamul mu mu toll waaye day fexe ba déggee ko ci beneen cheikh bu bokkul ak buxaari pour jaaree ko foofu parce que boole na leen mere jeex na mu doon fitna joo xam ne kon tàbbi woon na ci diggante xeet wi ci ay jamono yoo xam ne li ko daan taal rek ba tey mooy lii taal fit na yi mooy nit ñu defaruwut nit ki ngir mu defaru xol bi day defaru boo gisee lu baax ne lii baax na boo gisee ku baax nga soññ nit ñi da dem leen ca diw ngeen jariñu ci moom ci fànn sàngam te mën a sax ca loola nag waaye waxuñu nga tàmbali ko ba noppi li dal góor gi di la dal wallahu alam kon foofu li ñu bëggoon a def rek mooy leeral pour ñu xam ne lafsi bil quraani maxluuq ak sawti bil quraani maxluuq ñaari masala yooyu bokkuñu sawti bil quraani maxluuq moom boroom xam-xam yi juyoowuñ ci ne na koo wax lafsi bil quraan bu fekkee da nga cee jublu ne sa wax ji ngay wax ñi koy dégg moom nga ne dañ koo bind kooku dara nekku ci waaye bu dee dangaa bëgg nag ne la ngay wax ci boppam loola lañ bind kon kooku loola waxi suñ borom tabaraka wa taala la kenn bind ko moo tax mu ne fa sawtu wal alxaanu sawtu lqaari lakinama almatlubu qawlu lbaari maa qaalahu laa yaqbalu tabdila kalla wala asdaqu minhu qiila am na ay nusax yoo xam ne kalla moo fa nekk waaye kallaa la kallaa wala asdaqu minhu qiila maa qaalahu lépp loo xam ne wax na ko moom sunu borom laa yaqbalu tabdila laa yaqbalu tabdilan du nangu soppat kenn mënu koo soppi mënees koo changé borom bi nee na maa yubaddalu lqawlu laday wa ma ana bi zallaamin lil abid nee na ay waxam kenn du ko soppi maa qaalahu laa yaqbalu tabdila watlu maa uuxiya ilayka min kitaabi rabbika laa mubaddila li kalimaatih ay baatam kenn du ko soppi kenn mënu koo changé moo tax mu ne maa qaalahu laa yaqbalu tabdiila kallaa nee na déedéet wala mukk wala asdaqu minhu qiila wala asdaqu amul ku dëggu ba mel ne moom qiila ci ay wax kooku ismu tafdil ala gayri baabihi wala asdaqu amul ku dëggu ba mel ne moom qiila ci ay wax waaye foofu bul ne moo gën a dëggu ñépp loolu rek doyul waaye kenn dëgguwul ba séen ko moom sunu borom tabaraka wa taala moo tax mu ne wa man asdaqu min allahi qiila waxaa ne wa man asdaqu min allahi xadiisa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne asdaqu alxadiisi amma baad fa inna asdaqa alxadiisi kitaabullah li gën a dëggu ci li ñuy wax li nga xam ne lenn jegewu ko ci ak dëggu mooy waxi sunu borom tabaraka wa taala mooy téeréem bi kon loolu mooy lu aju ci alquranul karim ak lu aju ci sifatul kalaam muy melokaanu wax kon wax ci melokaanu sunu borom tabaraka wa taala ci la bokk melokaanam la woo xam ne day wax saa bu ko soobee ay waxam du jeex mukk mu ne waqad rawa siqaatu an xayri lmala bi annahu azza wa jalla wa ala fi sulusi lleyli alaxiri yanzilu yaqulu hal min taa'ibin fa yuqbalu hal min musii'in taalibin lilmaghfira yajid kariman qaabilan lilmaghfira nee na waqad rawaa solo na wala nettali na athiqaatu ñu dëgër ña ñu dëggu ña ci nettali an xayril malaa jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ki gën ci doomi aadama yi maanaam ñi nga xam ne luñ solo wér na luñ nottali wér na jële nañ ci ngën ji doomu aadama mu ne bi annahu ci nekke moom sunu borom damir yooyu ci yàlla lay dellu azza tedd na wa jallata màgg na wa alaata kawe na jële nañ ci moom mu ne sunu boroom fi sulusi leylil axiri yanzilu maanaam yanzilu fii sulusi leylil axir yanzilu dana wàcc fii sulusi leyli ci ceeru guddi ga al axiiri ba di mujj guddi gi boo ko defee ñetti xaaj xaaj bi ci mujj nee na borom bi day wàcc bu wàccee lu muy wax yaqulu day wax hal min taibin ndax am na kuy tuub fa yuqbalu ba ñuy nangu ak tuubam hal min musiin ndax am na ku ñaawal boroomi bàkkaar taalibin koo xam ne day sàkku aji sàkku la lil maxfira ñeel njéggal ga ndax am na ku ñaawal am na ku def bàkkaar koo xam ne mi ngi wut njéggal yejit kooku day bu fekkee am na dana fi fekk kariman ku tedd qaabilan kuy nangu lil maxfir ñeel ngànt ga xam ne boo ne ko nangam ak nangam mooy sama ngànt damay tuub mu nangul la sa ngànt dana fa fekk ku mel noonu loolu mu ngi ci junji xadisu abi hurayra bi nga xam ne buxaari ak muslim ñoo ko génne loolu la jubli ci asiqaat foofu maanaam ñi nga xam ne luñ solo wér na mooy buxaari ak muslim kon jëlee nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali mu ne yanzilu rabbuna tabaraka wa taala sunu borom tabaraka wa taala day wàcc guddi gu nekk ila samaa dunya ba agsi ci asamaan si gën a jege suuf xiina yabqa sulusu leyli l axiir boo xamee ne ceer bi mujj ci guddi gi moo ci des su wàccee fa yaquul man yad'uuni fa astajiba la kan moo may ñaan ba ma wuyu ko kan moo may ñaan ma wuyu ko wa man yasaluni ana kan moo may dagaan maanaam sàkku ci man ay may fa utiya ma jox ko kan moo may dagaan ma jox ko wa man yastaghfiruni kan moo may jéggalu fa aghfira ma jéggal ko ñetti mbir yoo xam ne nit ki mënu koo ñàkk li ngay ñaan mu nekk ci sa xol nga fas ko yéenee def li ngay ñaan fas ci yéenee mucc bu waxtu jotee boo ko ñaanee sa borom tabaraka wa taala nangul la sa ñaan li ngay ñaan te bëgg koo am muy xéewali àdduna ak àllaaxira itam mu jox la ko li nga def ci bàkkaar te bëgg raxas boo ko jéggaloo mu jéggal la kon waxtu wu màgg ngoog boo xam ne jullit waru koo sàggane waaye li itteel foofu moo di nga xam ne borom bi tabaraka wa taala kon bokk na ci ay melokaanam sifatu nuzul maanaam borom bi tabaraka wa taala day wàcc xamoon nañ ci ay tegtal yu wér ne borom bi ci kaw la nekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xabaaraat nañu kon ci xabaar bu wér ne day wàcc ba ci asamaan si lu gën a jege noonu door a wax loolu muy wax buntub al asma wa sifaat nag nit ñi ñaari xaaj lañ fi ñaari xaaj am na ñoo xam ne dañoo gëm ne lu yàlla wax dëgg la ab yonentam lu mu wax dëgg la te borom bi tabaraka wa taala ni nga xamee ne jëmmam bokkul ak jëmm yi ay melokaanam bokkul ak melokaan yi kon su ne dana wàcc ñooñu nee nañ oxu kay dana wàcc de waaye nag du caagi ne wàcc gën jàpp noonu muy wàccu doomu aadama jóge fi barab dem fi beneen barab ñu ne nekkatul fa mu nekkoon duñ dugg ci moomu maanaa di wax naan wàccin wa nii la ak neneen la loolu mooy benn kuréel bi te mooy ahlu sunna wal ñi nga xam ne dañoo sóobu manhaju asalafu saalih fi asalafu saalih doon jaar ci buntub sifaat yemul ci sifatu nusool képp mu melokaanu wàcc wi waaye mboole melokaani suñu borom tabaraka dañoo gëm ne bokkliwul ak mbindeef dara laysa ka mislihi shay'un lenn melul ne moom waaye nag te ànd ak ni ñoom ci seen bopp ñu wóote lañ ñenn ñi ñu xóotal lañ ñu ci des ñu teengal ñu ci des ñu réer rek yem ca ñoom ñépp dañoo jàpp ne seenum xel lañuy ñuy jiital buñ tuddee melokaanu seen boroom ñu xiyaas ko ci melokaanu mbindeef su fekkee gis nañ ni waaw wu ñu war a mën a nangu la ñu nangu ko ne wii xel nangu na ko bu dee lu xel nanguwut ñu ne ah, loolu moom sooy boo ñu seetal ko meneen maanaa waaye duñ ci dégg loola moo tax lii ñu tudde sifaat xabariya muy melokaan yu mel ni wii nu nekk nii muy sifatu nuzul ñooñu dañ koy taawil dañ koy interpréter soppi ko jox ko meneen maanaam mu bokkul ak wàcc wala ñu jox lay wàcc mu doon leneen sax far lu dul suñ borom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yanzilu rabbuna ñu ne malaikatuhu ñooy wàcc ñu ne malaayika yi ñooy wàcc loolu la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jublu waaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam mi ñu wàccee ci moom alxuraan wàcce ci moom sunna ne ko leeralalal nit ñi seen diine yàlla dogal moom ci boppam mu doon ki gën a am fasaaxa ci araab yi dàq cee wax yàlla dana dana ne ko jottalil ma nit ñi ne leen danaa wàcc waxtu sàngam mu ñëw ne leen malaayika yi danañu wàcc waxtu sàngam kon dana am balaaxa wala mu am fasaaxa ak malaayika yi suñu wàccee ba noppi ñoom ñooy wax naan kan moo may ñaan ma may ko hmm? kan moo may jéggal ba ma jéggal la loolu malaaka dana ko wax waxi malaaka borom bi wa taala moo koy wax waaye ñoom seeni xel lañ yor ñu ne ah borom bi kat su wàccee place ñëw place loolu lu waar la te am na sax ñu dem bay garaawal wax wax ju garaaw raas yi boo demee ci asaasu taqdis ab téeréem la mi ngi ciy wax ne maanaam suuf si comme que day wëndeelu fajar maanaam sulu sulaylil axir buy jot fii fële fekk na jotagu fi bu nes tuuti ma ngay jot bu nes tuuti mu jot fële jamono ju nekk am na foo xam ne sulu sulaylil axir moo fay jot mu ne kon loolu li muy tekki mooy borom bi tabaraka wa taala ci sama dunia rek foofu lay dëkk kon du fa jóge mukk xam nga kooku mu ngay jéem a xam wàccin wi nan la mi ngi jéem ma xam alkayfiya borom bi tabaraka wa taala waxuñu kayfiya bi wàcciin wi waxuñu ko moo tax lënt yooyu yépp du doon lënt yu tekki dara lënti ku jël melokaani sunu borom qiyaas ko ci melokaanu mbindeef la naam su fekkoon ne mbindeef mooy wàcc day mu ne nu heure sàngam saa bu jotee maa ngi ci bërëb sàngam heure boobu dañuy jàpp ne fu mu jote fu nekk mu ngi foofu su fekkee ku dëggu la waaye nag ci kaw nu xam melokaan wa na muy doon mbindeef xam nañ ak wàccam ni mu bindoo xam nañ dam mel waaye nag borom bi tabaraka wa taala ak wàcc yi nam xamunu ko comme ni nga xamee ne xamunu mbind binde bindam moom moom jëmmam ci boppam nan la mel li ñu tudde al kayif kooku ci sifaati sun borom tabaraka wa taala muy melokaanam kooku bindee fii xamuñu ko ndax waxu leen ko waaye bu leen joxee xabaar bi ñu gëm ne xabaar bi wér na loolu mooy taxawaayu ahlu sunna wal jamaa ci sifaat yi kon dañuy gëm ne saabu waxtu woowu jotee borom bi tabaraka wa taala wàcc na ba ci asamaan si gën a jege di wax kàddu yi mu wax su ko defee jullit bi moom loolu lan la ciy jariñu mooy jéem màng waxtu woowu jariñu ci si jotee ak lu mu nekk mu jéem fexe ba force boppam teel a yeewu julli fa ay waxtu tàllal ay loxoom ñaan boroomam ndax lim soxla bari na lool ci àdduna ak ci àllaaxira lim soxla bari na lool mu ñaan boroomam lim gàddu ci bàkkaar itam na lool mu jéggalu boroom ndax sunu boroom tabaraka wa taala jéggal ko kon loolu mooy xadiis bi moom la junj foofu moom la ne waqad rawa siqaatu an xayril malaa mu ne yamunnu bil xayraati wal wa yasturu al ayba wa yu'ti saa'il maanaam ba tey ci firig xadiis bi la nekk yamunnu mooy dana xéewal moom suñu boroom dana xéewale bil xayraati ca yiw ya wal fadaili ak ngëneel ya wa yasturul ayba muy suturaal ayib yi wa yuti saail muy jox kay yalwaan kay ñaan wala kay dagaan boo laajee mu jox la loolu ci suñu boroom wa taala moo koy def kon loolu bu wàccee ba ci asamaan soosu yooyu yépp lay def yooyu kenn ku nekk soxla nga ko kenn ku ne soxla nga sa xéewali boroom ci yiw yi mu jox la ci ngëneel yi mu jox la ci ndax nga doon nit ku baax sa ayib yi ngay def yow doomu aadama bi hmm? su wuñi woon sutura yi nit moo tax dañuy wax naan am na benn nit mu naan bu doon ku def benn bàkkaar da ngay sax benn béjjén boo defaatee beneen benn béjjén génnaat mu ne kon ba tey doomu aadama yi li ñu yor ci ay béjjén kenn xam nañu toog xol bu nee neexoon borom bi tabaraka wa taala noonu la mbir yi demee koo seen ay méjjënam nekk ci kanamam tàll ku nekk waaye sutura nga xam ne sa digganteeg sa borom la nga def bàkkaar mu xam ko nga xam mu bàyyi la jox la occasion nga tuub mu jéggal la effacé loola ngay continuer di bàkkaaru di tuub muy jéggal la kooku yërmande la joo xam ne màgg a sa diggante ak sa borom lu ko mat a sante la lu ko mat a la su dul woon loolu moom kon ba tey àdduna tukki na bu yàgg da nga gis ñu topp ci nit koo xam ne di ko màggal ñuy def bu ne bay yàggee nit dañ ko fay bàyyi dem na ne wa annahu yajiu yowma alfasli kama yashaau kama yashaau lilqadaai aladli mu ne wa annahu nekk moom sun borom yajiu dana dikk yowma alfasli bisu àtte ba maanaam bisa ngi ñëw bindeef yépp lu yàlla mës a bind mu dekkal la ñu daje borom bi tabaraka wa dikk ak si àtte leen kon dikk ci melokaani suñu borom tabaraka wa bokk al ma ji sifatul ma ji moo tax mu wax ci alquran ne rabbuka walmalaku safan safa wa jaa rabbuka walmalaku wa jaa mu dikk rabbuka sa borom wal taj ba muy dikk malaayika yi safan safa ngi def ay sàppe ñoom ñépp di xaar mu agsi nag pour àtte kon bis la boo xam ne yowmal qiyaamati la bu ñépp taxawee dajaloo di xaar kenn ku nekk di rab rab yi lu yàlla mas a bind yonent bi sallallahu alayhi nee na yonent ya sax seenu ñaan ca bis boobu mooy allahuma sallim sallim kenn ku nekk mucc ngay ñaan bis boobu kon kenn tëlut kenn kenn ku nekk sooy bëgg a jéemal sa bopp fii léegi kenn tëlut kenn sallim sallim kenn ku nekk yonente la wax de yàlla yàlla nga musal yàlla yàlla nga musal lool la ñuy wax loolu seenu ñaan bis boobu ñépp di daw di dem ci yonente yi kuñ song ne ko yow te bu boobaa li ñuy wut maanaam jegeel nañ jant bi ba mu jege naaj wi tàng ba àgg ci jéggi dayo kenn gisul ker lu dul benn benn nit benn benn nit yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci xadis juróom-ñaar yoo xam ne bu bis boobaa dañuy am ker juróom-ñaar yoo xam ne dañuy am ker ñooñu kat moo leen teewlu fii sabaatun yuzilluhum allah ah ku ci jëkk imaam joo xam ne ku maandu la njiit loo xam ne lu maandu la kooku mooy kenn ki ka ca des shaabun nashaa fi ibadatillah ndaw loo xam ne dafa toll ci ndawam waxtoom yépp mu sacrifice def ko ci def ko ci jaamu yàlla sori lépp loo xam ne xeetu mooy yàlla la ak ak nit koo xam ne xol baa nga ca jàkka ja saa bu génnee ci jàkka ja mu ngay kalkinaat waxtu julli wa kañ la waat kooku mooy xol bi aju ci jàkka ja ak kan ah <laughs> allah maanaam koo xam ne bët boo xam ne jooy na ngir ragal sunu borom tabaraka wa taala wéet nit ku wéet fi barab ba mu yàgg mu fàttaliku boromam rangooñam tuur ñaari nit ñoo xam ne bëggante nañ ci yàlla yàlla képp tax ñu bëggante bañ demee bay tàggoo it di meroo yàlla kese tax ñu tàgg ak koo xam ne wéet na fi béréb boo xam ne dara doxul diggante mag def lu bon jigéen woona ko ci boppam yoo xam ne boroom daraja la boroom taar la ñu wéet fi béréb ñoom ñaar dong mu daw ko lànk ngir ragal suñu borom tabaraka wa su bis booba tàngoor wu metti wa ñu jegeel jant bi ba kenn ku nekk yëg ci sa bopp ne yow mii daa jant bi dañ la koo yan su boobaa nit ñi waxuma ñii ñaan naan dugg àjjana ak def leen waaye jóge fii jóge fii li ñu bëgg ñoom ñëpp moo tax bu ñu ñëwee ci yonente yi li ñu leen di wax mooy waxal suñu borom mu ñëw àtte kenn ku ne xam foo jëm noonu la ñuy topp yonent yi comme ni ngeen ko jàngee ci xadisu shafaa bu gudd ba suñ ñëwee ci biir yonent aadama mu ne ah man de dafa am lu ma defoon ñu jàll ci keneen nuux topp yonent yi noonu ku ñu wax ñen la demal ci keneen bañ agsi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu sujjóot di ñaan sun borom tabaraka wa ngir mu àtte jaam yi ñu ne ko yëkkatil sa bopp tey du bésu jaamu yàlla ànd ak ne borom bi tabaraka wa na jox na ko ci bis boobu ci ay tuur ak ay xeet yu muy sante suñu borom ak yu mu koy ñaane yoo xam ne mosu ko woon a xam lu jiitu loolu waaye ñu ne ko yëkkatil sa bopp te ñaan tinul des na la tin kon kooku mooy xadisu shafaa borom bi tabaraka wa taala nag ci biir loola nag ci lay ñëwee nag àtte nit fa la wajaa rabbuka wal malaku safan safa kon ahlu sunna wal gëm nañ ne sunu borom tabaraka wa taala bokk na ci ay melokaanam mooy dana dikk ak dikkam nu muy demee xamuñu ndax melokaan la ci ay melokaanam la bokk te ngir nga xam melokaan da ngay xam jëmm nu mu mel te xamuñu jëmm kon daal nee nañu dana dikk gëm nañ ne dana dikk am nañ ci yàqiin amuñu ci lu ñuy nattable amuñu ci déng-déng waaye ña nga xam ne ñooy topp seeni xel dañoo taawil loolu ba tey maanaam dañ koo interpréter wa jaa ñu ne wa jaat malaikatu rabbika ñu ne malaayika yi ñooy ñëw ba tey borom bi tabaraka wa taala ma jaa rabbuk yàlla la wax ne mooy ñëw wal malaku soffan soffan malaayika yépp ay sàppe lañ def boobaa di xaar kooku kay mënatu ñoo wax foofu ne malaayika yi ñooy ñëw kon jullit bi bokk na ci yi mu war a gëm mu gëm ne borom bi tabaraka wa taala day ñëw moo tax mu ne wa annahu nekk moom sunu borom yajiwu dana dikk yowmal fasli bisu àtte ba mooy yowmal qiyaama kama yashaaw nam ko soobe nam ko soobe rek lil qadaai ngir atte ba al adli ba di maadu atte bu maadu lay lay atte atte bu maadu boo xamee kenn kenn du tooñ kenn lu nit ma sa nit te jéggalu ko ko bu keroog yi dana ko fay moo tax ci mashaahid yowm al xiyaama dafa am ay yëf yu doy waar yoo xam ne bu ko nit ki dee jàng sax ci xadis yi day mujj day yéemu ci sunu borom tabaraka wa taala ci maanu teem bis booba nee nañ bokk na ci yi nga xam ne dana fa feeñ bu nit ñi taxawee di xaar atte bi suñu borom ñëw ngir ñu won leen ak te sax ak i misaalam bala ñoo dugg ci atte doomu aadama yi danañ leen won yoo xam ne su doon ci jamono tey ji dañ ko tuddee ay lancement yu leen di won ne mbir mi nii la nar a doxe danañ dekkal ñaari bàyyi ma ñaari bàyyi ma maanaam ñaari xar yoo xam ne dañoo mosoon a mbëggante mel mi amoon i béjjën te mi ci des amul i béjjën mi amul woon i béjjën ñi weel ko ay béjjën ngir mu mbëkk ma leen ndax mu fayu ñi won leen lu mel noonu avant ñuy dugg ci biir àtte bi ak yeneen nag yu mel noonu yu baree baree bari pour nit ñi xam ne tey jii àtte bi moom njuuj njaaj mënu fee am mënee su la jël ab avocat boo xam ne day day soppi yëf yi ne la lii nii lañ ko war a déggee wala nee lañ ko war a waaye lépp leer na ku maandu koo xam ne ku mën a calcul ku takk lépp loo xam ne moom nga mos a def moo la koy won bu bis keroogee su keroogee daal yàlla na fekk jëf ya doon ay yiw yàlla na borom bi tabaraka wa taala may ci ay yiw lu baree baree baree bari loo xam ne bu bis boobaa dana nu xett ni na ci itam lépp loo xam ne xeetu bàkkaar la woo xam ne day gàllankoor nit ka ca bis boobee lépp loo xam ne day woyofal tawxiidi nit wala muy woyofal sunnaam yàlla na borom bi tabaraka wa taala musul ci loolu saxal na ci tawxid bu sell saxal na ci sunna soo xam ne su leer ñi la musul na ci lépp loo xam ne day juyoog loolu ndax kat loolu mooy indi lor bu bis boobaa tàbbi ci shirk muy bokkaale wala nga tàbbi ci biddaa ñaar yooyu ci gàllankoor yu mag yi ci lañ bokk nit ki li féeg fexewul ba tawxiitam sax mu mus ci mucc ci bokkaale mi ngi ci dansé bu mag na gaaw balaa génn fii xet li boppam li féeg muccul ci biddaa tàbbi ci sunna bu wér wattandiku biddaa caaxaanal mooy yàlla yi nga xam ne ñooy gàllankoor aadama na ci gaaw dellusiwaat léegi li féeg dara des na ci dund gi mu wóor ko ne moom faatugul xëy na dese na fi ñetti fan wala juróom wala weer wala mu at na gaaw dellusi jàppaat siwaat ci boroomam tuub borom bi tabaraka wa taala jéggal ko lu weesu woon mu mën a sax siraatul mustaqim ndax mu mën a mucc ci bis boobee waaye yi nit ñi di wutal seen bopp defe ne moo leen di xett li def koy lay bu ñu waxee nga ne yërmande yàlla yaatu na wala nga ne diw laa yaakaar wala ci kër diw lan bokk yooyu amut foofa de borom bi tabaraka wa taala nee na yooyu amut foofu yawma yafirru almaru min axiihi wa ummihi wa abihi wa saaxibatihi wa banihi li kulli mriin minhum yowma idin shanun yugnihi loolu borom bi tabaraka wa taala wax bu boobaa doom jeeg bàyyi bi sax buñ séerantee dañuy daw kenn ku ne naan kee amaana amaana am na lu ma ko yoreel mu bëgg koo nangu si hmm? bàyyi bi su séenee doom bi ñu ne ceere boobu boo demee daa bëgg ñëw jàpp ci sama loosu ne ma lu tax dugaloo ma woon ma jàngi alxuraan day daw xale ba di ko topp parce que yéene topp ndax mu man lenn ci bàkkaar yam gàddu ñi man ko koo teggil yan ko ko yaa ma jàngal woon diine yaroo ma woon tegoo ma woon siraatul mustaqim ba ma dugg ci ay njaaxum yow kay foo jëm ma jëm fa tey topp mu daw jëkkër ja noonu digganteem ak jabar ji ñuy daw kenn ku nekk di daw sa morom kon nag bis boobee su wóoree ñépp ne mi ngi ci kanam te day ñëw kenn ku nekk war naa bàyyi xel bis boobee kii dund nag amutu lay kii dund amutu lay ndax soppi mën na koo def tey fii mu toog nii mën naa jékki-jékki ne insha allahu nangam jii nga xam ne moo ma gàllankooroon ba jox ma njàqare fas naa ko yéene bàyyi bis ni ko tey dog siraatul mustaqim fas yéene dox ñetti fan wala ñeent képp mën na ko caa dox su wu ji woon boroomam it borom tawfiq lay doon yàlla na ko yàlla defal nu bokk ci ñi nga xam ne dañuy am tawfiq ëllëg ñu xool leen ci laaj yi pour ñu jublu ci laaj yi comme ni mu fi toftaloo xam na laaj boo xam ne boroom dafa laaj mu ne euh, téere bi ñuy wax kitaabul kabair muy al imaamu zahabi dafa gis lenn ci ay nit ñuy wax ne téere boobu defu ko kitaabul kabair bu alxaafis al mu ne daa su ñuy wax ne al zahabi bindu ko waaye ñu xam ne loolu mooy moo ko bind alxaafis ibnu kasir ci taalibey zahabi ci la bokk maanaam zahabi jàngal na ko bi muy firi li suñ borom tabaraka ma in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudxilkum mudxalan karima bi muy firi aaya boobu ci suratu nisa foofa la waxe ne cheikhuna maanaam sunu sëriñ alxaafidu dahabi bind na téere boo xam ne alkabair la ko tuddee tudd na ko loo xam ne ëpp na juróom-ñaar fukki bàkkaar kon wér na ne alxaafidu dahabi bind na téere boo xam ne kitaabul kabair la tudd te li gën wér mooy mooy téere yi ñu ko askanale mooy kitaabul kabair boobu ndax ku xam waxiinu dahabi ci yeneeni téereem booy liir téere boobu dangay ngay yëg ne zahabi ngay liiral rawatina nag alxaafis ibnu kasir lib taalubeem xam ko lool xam mbindam saxal na ne bind na téere boo xam ne alkabair la ko tudde te lim ca tudd ci ay bàkkaar itam dafay jege lool ak li rot ci téere bi muy dafa wax ne tudd na ci lu ëpp juróom-ñaar fukki bàkkaar te téere bi it melokaan woowu lay wax kii dafa ne lu tax sunu borom tabaraka wa munta bokk ci turam yi alsaaxibu fi safar walxalifatu fi l ahl ginnaaw loolu rot na ci xadis bu wér maanaam xas loolu mooy li rot ci ñaanu kuy tukki allahuma anta saaxibu fi safar walxalifatu fi l ahl mu ne ndax lu tax mënuñu ko tudde kon a saaxibu fi safar moom borom bi wala ñu tudde ko alxalifatu fi l ahl moom sunu borom tabaraka wa taala foofu li yonente bi alayhi salaatu wasalaam digle ñu ñaan ko mooy yàlla yow mi nga xam ne kii tukki yaa ngi ànd ak moom ki dem itam yaa ko wuutu ci këram maanaam yaa ko fa yaa leen di wattu ba mu jël si kon yaa ko fa wuutu mu ne ndax kon mën nañ koo tuddee àndandoo ji ci tukki bi wala kii wuutu nit ñi ci kër ñu ne lool ci turi yàlla la bokk ñu xamal kooku ne ci buntu al asmaa wa sifaat buntam dafa doon bunt boo xam ne bunt bu xat la yaatuwut moo tax dañuy wax ne li nga xam ne mooy afaal yi yi nga xam ne suñ borom tabaraka wa da koy def loolu moo gën a yaatu buntub al asma wa sifaat bari yu baree baree bari yoo xam ne da koy def te du tax ñu wutal ko ci ay tur wa makaru makran wa makar naa makran borom bi tabaraka wa taala nee na dana def makkar suñ defee makkar mu def wa huwa xaadiuhum yuxaadiuuna allah wa huwa xaadiuhum ndax dana tax ñu tudde ko ne moom maakir la wala ñu tudde ko mu xaadi wala xaadi déedéet yooyu tur kenn ko jox kon baabul afaal awsau gën a yaatu àndandoo ci tukki ak wuutu ci kër di leen sàmm loolu ci buntub jëf yi ci lay dugg moo tax benn bu ci ne bi mu rotee dañ koo taqyiid maanaam dafa am ci luñ ko tënk rek anta saaxibu bañ naan ko yaa saaxib déedéet su fekkoon ne naa wax ne yaa saaxibu ñi xam ñi daal di xam ne yàlla ngay wax kon loolu dana mën a bokk ci asmaay wa sifaat yi waaye boo ne woon yaa saaxibu kenn xamul ko ndax sa àndandoo ngay woo wala keneen waaye nag bi mu ne as saaxibu fi safar tënk ko dolliwaat ca ne wal xalifatu fi ahl ñu xam ne loolu borom bi tabaraka wa taala rek moo jagoo loolu maanaam moo mën a ànd ak yow ci tukki bi ba noppi di wattu sa waa kër ci kër ga kooku borom bi tabaraka wa taala moo ko mën a boole yooyu soo leen boolee loolu jëfi sunu borom tabaraka wa taala jum jagoo la waaye bu dee saaxibu fi safar képp nit ki mën na ko maanaam mën ngaa tukki ànd ak kenn ca tukki ba wala déet ok alxalifatu fil ahl mën nga ko wut yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu masaan di génn di tukki day jël benn xalifa bàyyi ko ci dëkk bi lu gën a bari abdullah ibnu ummi maktuum la ko daan def def na ko ali ibnu abi taalib benn bis kon bu la neexee man ngay tukki am koo bàyyi ca kër ga ne ko wattul ma kër gi ba ma ñëw waaye nag ki mën a boole yaar yi ànd ak yow ca tukki ba ba noppi di wattu kër gi ah kooka nag doonatul moom doonatul nit kon li mu bëgg a wax foofu mooy asaaxibu fi safar képp doyut alxalifatu fil ahli képp doyut boole yaar yi nag loolu lépp mënuñoo àndandoo doon aw tur maanaam nga doon asaaxibu fi safar wal xalifatu fil ahli nga ne loolu benn ismu la wala benn sifa la déedéet kon buntu jëf yi jëf ji danañ ko askane suñu borom tabaraka wa taala ne def na ko te fekk du tax ñi mën caa jële aw tur wala ñi mën caa jële aw melokaan loolu mooy tontu laaj boobu itam kii dafay laaj lan mooy al farq lan mooy différence bi dox diggante asifaatu alxabariya ak asifaatu alfiiliya sifaatu alxabariya dana nekk sifaat fiiliya li ci gën a bari sax sifaat fiiliya lay doon maanaam amul amul différence foo laajeen wi ci boppam xóotul li ñu tudd sifaat xabariya li ëpp ci sifaatul xabariya maanaam fiiliya la doon bokk na ci yanzilu rabbuna tabaraka wa wa jaa rabbuka kenn ku ci nekk sifa xabar la ndax xabar moo ci ñëw jox ñu ko xadis hmm? fi'l la itam kon yooyu danañ li gën a bari ñooy ànd kon farq amut diggante boobu waaye li ñu waroon a laaj mooy diggante as-sifaatul fi'liya ak as-sifaatul zaatiya melokaan yi nga xam ne dafa taqoo jëmmi suñ borom tabaraka wa te du tàqalikoo moom mukk ak yi nga xam ne da koy def léeg-léeg léeg-léeg du ko def maanaam loolu am na am na melokaan yoo xam ne duñ tàqali ko suñu borom sifa bi ñuy tudde alxaya alxayaatu maanaam dund kooku du tàqali ko suñu borom mukk du ko ak suñu borom al ilmu muy xam-xam as samu déggub suñu borom tabaraka wa ak basaram ak kalaamam waxam ak déggam ak gisam yooyu ay melokaan yu taxoo ak sunu borom tabaraka wa taala la bu dee da nga xool ci cosaanu melokaan yi waaye nag yeneen sifaat yi ci boppam da koy def léeg-léeg léeg-léeg mu bañ koo def comme nuzul sifatu nuzul yonent bi wax na waxtu bi kañ la xiina yabqa thulusu leylil axiir bu sulus bu mujj bi desee ci guddi gi muy ceer bu mujj bi foofu la wàcc di amee waaye duñu wax ne wàcc sifa la yàlla déedéet kenn du ko wax kooku sifa fi'liya la amma sifaatul xabariya nag li tax ñu tudd ko xabariya mooy melokaan yoo xam ne bu teg texte ñëwul woon wax la ko loolu doo xam ne am na waaye am na nag melokaan yoo xam ne moom bi mujarrad yi nga xam ne borom bi tabaraka wa am na da ko war a xamaane xam nga ne yàlla am na war ngaa xamaa ne kuy dund la loolu war nga xamaa ne jarut alxuraan di wàcc di la yëgal ne day dund nga door a xam ne day dund kon kooku du xabar ya waaye day wàcc fu ko doon xamee ne borom bi tabaraka wa taala day wàcc ba ci asamaan su jege si su fekkul woon ne xabar moo ñu ko andil kon xabaar moo ñëw jox ñu ko loolu moo tax ñu tudde ko sifaatul xabariya kon sifaatul xabariya lu ci ëpp sifaat fi'liya lay doon wallahu taala alam kii dafa laaj mu ne ñu bon ñoo yi nga xam ne ñooy def amalu qawmi luut muy ay góor góor yi kese yuy jëflante ci seen biir li ñuy tudde ak ngóor jigéen mu ne kooku ndax bu dee dañ koy suul ci armée li jullit yi ndaxi it dees na ko jullee mu ne ndax dagan na it ci ab jullit mu ñaanal ko njéggal yii mu laaj képp koo xam ne sax na ne ab jullit la sañees na ko koo defal képp koo xam ne sax na ne ab jullit la sañees na ko koo defal mu des nag kookee doon def jëf ju bon jooju ndax ba mu koy def ab jullit la woon wala déet ndax da daan wax laa ilaha illallah di ànd ci jullit yi di julli suñuy julli suñuy woor mi woor ba noppi boole ko jëf ju bon jooju yi wala nekkul woon ab jullit su fekkee wóor na ne nekkul woon ab jullit moom yii mu wax yépp amu ci benn xàq bu ñu koy defal di ko jullee di ko suul ci armeeli jullit yi di su ko ñaanal waaye nag su fekkee daa nekkoon ci lislaam ba noppi di def jëf ju bon jooju yi ñooñu la ñuy tudde mooy ñi nga xam ne ci ahlul qibla lañ bokk bokk nañ ci jullit yi julli jëm qibla waaye dañoo yóbbaale bàkkaar yu mag su fekkee tuubul ba dee kon yóbbaale na bàkkaar bu mag a mag a mag a mag waaye bàkkaar boobee la muy rëy rëy du tey jullit yi ab jullit lañ koy jàppe ginnaaw jullit la woon loolu moo tax danañ ko sang sang ko jullee ko suul ko ca armeeli jullit yi te xam ngeen ni julli gi ak ak ñaan la ñaanal gi mooy julli gi kon loolu danañ ko ko defal ba noppi nag bàyyi ko boroomam ma ko tere woon jëf joojee mu tëb lànk di ko def su dajeeg boroomam ginnaaw yóbbaale nag tawxiid bu neexee boroomam mu mbugal ko mbugal mu metti ci sababus jëf ju bon jooj yi su ko mbugalee nag dana ko mas a sawara dugal ko àjjana ndax tawxiid bi mu yóbbaale lool ci màggaayu tawxiid ci la bokk su ko neexee ca ngëneelam yu màgg ya mu daal di koy jéggal fi saa si tàbbal ko àjjana kooku su baaxul suñu borom tabaraka wa rek lay dellu maanaam coobareem lay jëfandikoo foofu wallahu taala alam ala kulli xaal kii li muy laaj mooy jalsatul istiraaxa bi nga xam ne Malik ibnul Xuwayris moo ko nettali jalsatul istiraaxa mooy toogaay bu tuuti bi nga xam ne toogaay bu ndaw bi kiy julli di toog suy bëgg a jóg jëm ci ñaareelu rakkaa wala suy bëgg a jóg jëm ci ñeenteelu rakkaa di noonu la wala jëm ci ñetteel hmm. su jëmee ci ñaareel wala mu jëm ci ñeenteel foofu la koy toogee moom nee na day laaj ndax am na yeneen adilla yu koy tegtale ak téere boo xam ne day wax ci loolu wax ju gën a yaatu ala kulli xaal xadis moom bu xasee wér Malik ibn al ab saxaabi la boo xam ne ñëw na ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa ci Madina doon fa gan am fa ñaar fukki xam di jullee ci sàppe su njëkk si di xool jullit yonente bi ni ñu ko waxee yarqubu salaatahu wow lool loolu dong daa mel ne looloo ko taxoon a jóg di xool ni muy jullee bi mu demee ba ab tukkeem mat ba muy ñibbi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ne amul dafa mel ne sax maanaam xam na ni kii julli gee ko tax a jóg moom lay jàng moo tax bi mu tàggoog moom bokk na ci yim ko wax mu ne ko sallu kama raaytumuni usalli soo demee nii nga gis ma ni jullee na ngeen jullee noona kon Maalik ibnul Xuwayris moomu moonu nettalil ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam su masaan nekk ci rakkaa bu njëkk balaa jóg jëm ci ñaareel ba dana toog toogaay bu woyof daal di jóg bu ñëwee ba ci ñetteel ba it balaa dem ci ñeenteel ba dana toog toogaay boo weef door a jóg kon kooku mañ ko nekk defe naa loolu doy na dalil sëkk xadis bi nekk ci saxiixul buxaari boole ci kon kooku dalil la boo xam ne doy na sëkk ci képp koo xam ne kuy doylu la wallahu taala alam kii moom ci problème yi nga xam ne moom la ñuy dund rek ci lay wax mooy jafe-jafe yi am ci jàkka yi ci imaam yi ñàkk jàng njàng moo xam ne mu normal la ak it nekk imaam ba noppi boole ko yeneen i njaaxum muy mel na di njabar ak def yu mel noonu loolu lay laaj euh, di ko laaj na ci laaj laajiin woo xam ne xaw naa doy waar ndax su fekkee ne njàng mi baaxut ba ba agsi ci wala daal yi ndax danañ wax amin loolu loolu lay laaj muskila bi kay nekkul foofu problème bu mag bi dëgg-dëgg mooy fu ñuy jaar bés ràgg gu mag boobu muy feebar bu rëy boobu ci suñ jàkka yi mu jóg fi fu ñuy jaar ba mu jóg fi loolu mooy yan bu diis bi nga xam ne askan wi yanu nañ ko tëriinu jàkka ak ni ñu koy doxale ak tànniinu imaam faw askan wi dellu ci gannaaw seetaat ko di ko doxale ci geneen anam gu bokk dëgg nii muy doxe imaam lu rëy la imaam lu rëy la maanaam place bi gën a rëy ci lislaam place yi ci gën a rëy ci la imaam bokk moo tax même ki daa nekk amirul muminin sax amirul muminin nga xam ne mooy jiite jullit yépp imaam la daan doon boole ci maanaam ka daan jiite nit ñi ci julli kooku moo doonoon njiitul jullit ñi kenn ku nekk xam na ne Omar ibn Xataab radiallahu taala anhu noon bi ko jam bi mu koy jam fekk na ko muy jiite jullit fajar ali ibn abi talib noonu omar astafirullah xuma fajar la wala tisbaar wala takusaan allahu alam jullit fajar la ba tey ali ibn abi talib noonu kenn ku ci ne dañ laa fekk nga nekk imam kon xulafaa yi fi mas a jaar ñépp wuutu yonente bi alayhi salaatu wasalaam julli ñoo daan jiite nit ña jiite itam lépp lu aju ci seen wàllu àdduna kon loolu rek daf lay wax imaam ban place la yor ci biir askan bi jaadu woon na suñ ne kii mooy imaam ji jullit yi di ko xool beneen bët ndax xam nañ ne kooku bi mu daataan doon lii mu doon am na jaar-jaar yu bari yoo xam ne jaar na ci door a doon imaam ci biir diine ji ci wàllu xam-xam bi ci wàllu jikko ji ci wàllu xàmmee gi ci wàllu expérience bi ci wàllu daawa ak jubbanti nit ñi ñi xam ne yooyu yépp jaar na ci ba am ci lam ca am ci expérience door a nekk imaam loolu moo jaadu woon ci imaam ndax ni ñuy def wàllu àdduna bi ni ñu ko organisé bu ñu demee ba mu yàgg ñu ne la kii ab magistrat la kenn ku nekk xam na ne kooka nekkul woon ci yeneen maanaam di taxawaalu wala muy liggéey sport di football wala muy daw wala muy def dara ba màggat mënatul loola xëy xëy ñu ne kon na nekk ab magistrat wala mu nekk ab médecin kon ginnaaw léegi mënatul la mu doon def. Hmm? nekk ca tool di bay wala ngay def leneen ba màggat ñëw ñu ne ah yow kat kon léegi màggat bi léegi sos rek mooy nga doonu médecin kenn mos na ko dégg kenn mos ko dégg yooyu yi ma tudd nag moo xam magistrat moo xam médecine la wala lu mën a doon imaam a leen féete kaw maanaam nit ki balaa doon imaam ja foo mu waroon a jaar door koo mën a doon moo gën a sonle gën a diis ci ñooñu fañ jaar ba doon lañ doon bi nit ñi nag demee ba nga xam ne imaam jàpp nañ ne ku ne mën na koo doon kay liggéey nekk ci leneen jàngul alxuraan xamu ko mënu ko ndax jàngaluñ ko xëy na bu ca masee jaar bu yàgg la woon ba mu doonee ndaw jàng ca tuuti ñu jëli ko ko dugal ko muy jàng école wala mu dem ci leneen nekk ca la mu nekk moo xam ab mécanicien la moo xam dawal ko dub charrette la moo xam da doon liggéey ci administration wala lu mu doon def dem ba mënatut loola mu ñëw ci koñ bi daal di toog ñu toog ci garam place bi muy dam di ko def di ko def ba mu yàgg ñu ne ko ah, yow kat imaam ja fi nekkoon jóge na fi te yow fi mu ne yaa ne ah man ñu ne waaw waaw mu ne waaw kon de baax na daal di ñëw doon imaam kooku lu ngeen di séentu ci moom su fekkee mi ngi doon takk ay gàll ay gàllaaj day ñëw ne tekki naa ko parce que imaam laa léegi kenn gisul mu def su fekkee saagakat la ñaari baat yu mu wax da nga dégg mu saaga parce que ci loolu la formé woon noonu la mel bu dee ku daan sàcc la du tax mu bàyyi ko kon jëmmi imaam ci boppam dañ koo doyadal woyofal ko moo tax njaaxum gi am kon saafara si mooy jàkka yi faaw ñu organiser waat ko xam ne imaam sharia moo koy tànn waaye diisul tànn imaam ji ci kaw ne moo fi mag moo fi magi kese déedéet moo fi mag mën nañoo dem ba tànn ko fa mag waaye day fekk ñoo yem ci njàngum alxuraan ma maanaam sunu suñ doon tànn ay imaam juróomi ngi ñoo xam ne ñëpp ay candidat lañ xool nañu leen ne ah tubaarkàlla ñii di ñëpp mën nañoo jàng alxuraan ñu nattu leen ci sunna ñu ne ah ñii di ñoom ñëpp ñoo yem ci sunna ñëpp xam nañ alxuraan xam nañ sunna maanaam mooy xam nañ nu ñuy defar seenu julli jàpp itam nag sunna di ca julli lu fa sës kon mooy ñi xool ki ci mag léegi kon ki ci mag am na fu muy ñëwee waaye loolu disu ci tàmbalee di sut xëy rek ku fi mag mooy nekk imaam bi wala ñu jàpp ne wenn askan wii rek moom mooy doon imaam ñii daal seenub silsila imaam ci ñoom lay nga xam ne suñ demoon ba ay juhalaaw kese fa des maanaam ñu xamul dara ci diine yi faaw imaam ci ñooñu lañ koy tànnee kooku ci musiba yi indi fii ci la bokk wala ñu ne ki tabax jàkkaam mooy doon imaam ci ci jaaxum yi la bokk nit ki mën naa am xaalis mën na tabax jàkk te fekk mënta nekk imaam da dee nag ki tabax jàkkaam di jiite moom kenn mënu ca dara maanaam bu dee maay jiite sama jàkka moom mën ne suta jóge fële ne ko doog jiite waaye mu xam ne rek mi ngi ci njaaxum su fekkee ne matul imaam mu ngi ci njaaxum na dem wuti imaam teg ko fa ca la tuyaabaam di yokkoo mu des nag jullit bi bi mu demee ba mu wóor ko ne kii ci boppam njàng mu muy jàng jàngub alxuraan moom baaxul maanaam day yàq carrément ci alxuraan bi yàq yoo xam ne day soppi maanaam alxuraan ci comme laaj yu mel ni yi mbokk mi laaj su boobaa nañ ko laaye biir mu jàngiwaat alxuraan mu jàngiwaat alxuraan door a ñëw nekk imaam su fekkee daa bëgg doon imaam tañ seet keneen mu doon ilimaan ba ba muy jàngi ba ñëw su nangoo jàngi su nanguwut a jàngi te fekk nit ñaa ko fa tegoon nañ ko teggi ndànk seet keneen koo xam ne ku mën a jiite la mu teg ko fi yooyu waruñu cee maslaa ginnaaw nit ñi ñoo ko faloon teg nañ ko fi gis nañ ne moom mënta jàng alxuraan mi ngi jëfandikoo njabar nañ ko woo ba mu ñëw ñu ne ko ñaari mbir rek moo fi nekk da bàyyi lii nga def noonu noo la fi tegoon bàyyi lii ngay def muy njabar gii ngay def ak nit ñi di dugg sa kër gi te génn ngay bind yëf di leen jox ubal boobu bunt soo bëggee continuer doon imaam ñaareel bi alxuraan bii nii nga koy jànge jëlal ab jàngalekat ci sa kër ci sekkare mën nañ laa yebalal sax koo xam ne mooy ñëw di la jàngal nga rafetal sa alxuraan diggante boobu insha allahu diw sàngam mii na doon imaam ba ba ngay si ñu yebal ko mu dem jàngi su nangoo loolu baax na su ko nanguwul dañu teggi ko amul maslaa indi keneen ginnaaw noo la fi tegoon nu teggi la indi keneen loolu mooy li war a dox am na it nag ay programme yoo xam ne jullit yi dañ ko war a boole it nag ci yëngatu yi am ay ay séminaire ay formation yoo xam ne dañ koy defal imaam yi boole ci jàngaat alxuraan bu baax ay xalaqaat yoo xam ne ci jamono yooyu ñu koy def ñépp dañuy jël seen alxuraan gaaral ko ci jàngkatu alxuraan bu xam tajwid mu wéralal leen seenum njàng xamal leen attey julli xamal leen attey xutba ajjuma yooyu yépp des ko war a jàngaat da di nag liggéey bu yàgg la boo xam ne mënut a gaaw mënuñoo tëb tëb rek def ko mu daal di sotti waaye ñu yëg ne ci biir programme bi moom la war a dugg laaj bu am solo la boo xam ne day faral di ñëw ak ñëwaat rek saa bu ñëwee lu mel noonu rek lees ci mën a wax wallahu taala mu ne ndax mënees naa xutba ajjuma benn xutba bu continuer rek ba mu jeex bañ a toog benn yoon ala kulli xaal bu fekkee ne ni mu laajale hal yumkinu ndax mënees na ko loolu kay mënees na ko waaye rek ndax dagan na loolu moo doon laaj bi hal hal yajuuzu la waroon wax waaye hal la wax ndax mën naa nekk waxu kay mën naa nekk de waaye daganul juuyoo na ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xutba ajjuma day am ab toogaay ci diggante bi kon ñaari xutba la noonu moo tax sax xutbatul jumaa borom xam-xam yi ñu ci bari ñu ci ëpp ak xóotal duñ ko wax xutba tayil jumaa la ñuy wax ñaari xutba lañ ko tuddee ñoom xutba bu njëkk ak xutba bu mujj al xutbatul ula wal xutba athaniya loolu mënu cee ñàkk ndax moo dëppoo ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na asdaqul xadiisi kitaabu allah wa xayrul hadyi hadyi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam masala bii mu wax boroom xam-xam yi juyoo nañ ci kenn ku nekk xam na ne góor gi bu waxee jabaram ne ko yaa moog ndeyam la yemale loolu la ñu tuddee zihaar loolu la ñu zihaar duutu sañ dellu ci moom lu dul su kafaara muy laaj nag jigéen ji su fekkee moo ko wax ku góor gi ndax loolu zihaar lay doon moom boo xam ne moom it kafaara da koy war lenn ci borom xam-xam yi dañ ne benn la bu ko jigéen ji waxee itam kafaara da koy war am ci ñoo xam ne dañ ne bu ko waxee neen lay doon tekkiwul dara ndax ki pase nekk ci loxoom ki pase nekk ci loxoom moo sañ a wax wax ju mel noonu mi ngi mel ne rek jigéen ji su toogoon ba mu yàgg mu ne jëkkëram fase naa la ndax loolu pase lay doon loolu borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne loolu du doon pase a mun a sotti jigéen ji li man mooy ñaan pase sañ na nag jël décision ne faaw pase pase day am moom jàll am na droit ci jël décision ne faw parce que am ginnaaw mënatu la ànd ak moom kër gi moom du kaso boo xam ne ku ci xas bu dugg tëju nga duutoo génn mukk su bëggee génn ja sañ naa jël décision boobu bu boobaa charia a koy fekk si tas sëy ba waaye nag mu toog ba mu neex ko rek mu koy mu ne ko fase naa la tey mën ngaa dem wala mën na maa dem loolu du du tëddee noonu boroom xam-xam yooyu foofu lañ ko teg ñu ne moo tax bu defee zihaar it mu ngi mel ne mu fase rek du doon loo xam ne luy tekki dara la jàpp naa ne bañ ngee nekk zihar mooy doon li gën a dëgër jëkkër jabar ji su waxee loolu jëkkëram ñàkk gee nekk zihar moom lañ jàpp ne mooy doon li gën a dëgër wallahu taala kii def ne ndax kuy takk téere dees na ko ñaanal ak njéggal takk téere ñaari xaaj la am na kuy takk téere boo xam ne ci alxuraan la jóge am kuy takk téere boo xam ne ci leneen la jóge ay bant wala ay xor wala ay fas wala ay wëñ wala ay béjjéet wala xeet yooyu ngeen xam yooyu moom boroom xam-xam yi juyoowuñ ci ne dafa xaraam te it shirk la gën a ndax shirk akbar nag wala asgar la ngi dellu ci pas-pasu nit wér mooy shirk akbar la maanaam bokkaale gu màgg la muy takk loo xam ne ay xarga fuufa la yu bokkul ak alxuraan kooka nag ndax dañuy daal di àtte rek ne yéefar la wala dañ koy jàngal ba mu xam su fekkee daa xamul su xamul dañ koy xamal ne ko lii nga def kéefar la ak bokkaale la su ko xamee ba mu leer ci boppam mu continuer di ko def su boobaa nit ka moom na jàpp boppam ci moom digganteem ak xolam ginnaaw imaam nekku fi joo ne mooy àtte ni kii jullit wala kii yéefar la parce que loolu it qadaa la sharia moo koy def ñu yëg ne yéefarloo nit ki wax ni yéefar la wala jullit la kooku ab àtte la boo xam ne sharia moo koy def borom xam-xamu sharia rek moo ko sañ a wax yow mi dem ba xam ci moom loolu loo xam ne wóor na la ni kii mi ngi def jëf joo xam du jëfi jullit te taxawal nga ci moom yow layu sharia sa diggante moom ba noppi mu continuer nekk ci loolu ci sa xol yow sañ nga ko jàppee ku dul jullit waaye nag sañoo sañoo isdaar xokkum nag di wër nit ñi leen diw doon a tub ab jullit loolu sañoo loolu imaama ko sañ waaye sañ nga bu dee julli nga bañ a julli ci gannaawam sañ nga bu faatoo bul ko jullee bul ko jéggalu lool sañ nga ko su fekkoon ne nag mbiram daa siiw ba àgg ci imaam te fekk sharia moo fi nekk di qadaa sharia da koy woo ba ñëw mu ne ko yow béjjëni bukki yi nga takk béjjëni nag yi nga takk ak weyi bukki yi nga boole lii ak bokkaale la ku koy def yaa ngi jaamu ku dul yàlla ndax mën nga ko bàyyi bu ne waaw mën naa ko bàyyi ñu ne alhamdulilah dellul ci sa lislaam daal di doon ab jullit su laajtee ne continué ne man lii mënuma ko bàyyi ndax moo may aar moo may def li moo may def nangam nangam su boobaa alqadaa shari day génne ab xukm day atte tribunal islamique bi day génne ab atte ne diw sàngam doomi diw diw bis nekk tey ak yéefar la maanaam dafa tubbi te su boobaa du ñem foofa waaye sharia da koy daal di tàqaleeg jabaram ja doonoon ab jullit ñi door koo woo nag mu ñëw ñi di ko tuubloo nag fii ñetti fan su tuubee baax na su tuubul bu boobaa sharia day jël jaaseem rey ko ko nañuy def ab yéefar koy def diisu ko sang diisu ko sàng ko suul ci armée li jullit yi diisu ko ñaanal njëggal ndax kooku sharia àtte na ko ba mu doon ab yéefar ci karam nit ñi waaye nag yooyu yi may wax bu fi sharia nekkee di àtte moo tax waaye bu fa sharia nekkul di àtte nag nga xam ne nit ñi rek ñoo ko nekk seen fatwa ak seen i ijtihaadaat loolu mu wax moo fa sës yow daal boroom xam-xam nga xam nga li nit ki di doone jullit ak li nga ko nga ba ci moom laaye ko biir wax ko mu xam ne loolu bokkaale la lànk na sañ nga koo àtte yow sa àtte bopp te ne cell jëflanteeg moom noonu bul ko jéggalul bul julli ci gannaaw jàppal ne du jullit yow ndax am nga ca xujja am nga burhaan bu lay jox loolu waaye nag doo wër di tasaare di wax ne diw sàngam du du jullit ndax su boobaa da ngay daal di bëgg a toog palaasu tribunal boobu